Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. dafa mel ni làmb démb la ak tey suñ nee làmb démb Pikine tey tudd ñi ñu tudd sànq ñoom Papa Falaye ak Papa Fodé ak ñoom Papa Diop nga ne làmb tey wala tey par exemple ñi si ñoom Tyson lak ba Boy lak Eumeu Sène ak Ama Boy Niang soo doon def tey comparaison diggante ñaari ñaari <laughs> génération mbëri yooyu kan ñañ ñoo si di dàq bëre ñoom Papa Diop ñoo dàq bëre ñoom Eumeu Sène wala ñoom ñoom Boy Niang Ama Baldé ñoo dàq bëre ñoom Fodé ñoom ñoom Falaye. ñoom Papa Diop a dàq bëre ñëpp. ah bon ñoo leen dàq bëre. kooku kere yi ma gis si moom mosuma ko gis ba léegi. li may wax nii mbër yu mag xam nañ ko. Hmm? ñi fekk Papa Diop Double Less xam nañ ko. mbëru Pikine mosuñoo peese quatre-vingt-dix te bëri nañu ak cent cinquante kilos bëri nañu ak cent vingt Seranga Boy Niang Mohamed Ali Boy Boy Niang mu ngi doon peser quatre kilos Mohamed waaw Mohamed Ali bu mag Ali di peser cent vingt-six kilos ñun loo gën a gudd loo gën am am yaram mu gën ñoo arrangé parce que loolu Falaye Baldé Papa Diop ak suñu magi Pikine ni ñoon jàngal loolu Falaye ku ma seen saq sa ngëm nit ñi ñi nit ñi waxtaane la Papa Diop xam naa lu lañ ko daan tuddee yaa ngi dégg waaw te noonu lañ ñu jàngale bëri Papa Diop prise yi ma gis si moom Robert Diouf nee ma Mbaye Gueye nee ma secret la maa ko moom moom Robert. Mbaye Gueye moom moom ah, mm-hmm. secret lamb. Mbaye Gueye. ko moom. maanaam ci naka. lamb lu nekk secret. Mbaye Gueye Mbaye Gueye ko moom. mais bu fekkee bëri ak ak ak bëri rek la. Mm. bàyyi la Papa Diop ak Robert. xam nga Papa Diop ak Robert lu leen wutalee. Mm. Robert bu arbitre fur boo taxawee. Mm. boo taxawee rek xam na xam na li nga bëgg a def. day lii sa sa kii. waaw Papa Diop contre boo def kale boo def am na contre am loolu boo ko weesoo laaj ko Kati Kati Diop dafa mën a bëree Kati Diop Mbiite Ndiaye ah Sadio Camara na ko yàlla yërëm ah bërikat yaa ngi woon noonu Fass waaw mais boo duggee Pikine fii nga xool Samba Diagne Mbacke Ba Papa Diop. ah suñu bàyyi fàlla bale mm-hmm. bërëkër yaa nga woon noonu léegi nag xale yi boo leen jëlee génération boobu Tyson wàcc ba Tyson ba booy wàcc Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang boo leen jëlee ñoom boo leen doon xool tey def benn jàngat ñoom bëre kan moo dàq bëre seen a dàq bëre ñëpp ñëpp dafa dama ko dama ko Eumeu Sène bi muy am lan bi mu am 12 ans lay mm-hmm. ànd ak ñun Eumeu seen bëri bi ne si moom sax waneeku ko Eumeu Sène dafa mën a bëri waxuma la ay bëleentu de Eumeu Sène dafa mën a bëri ku yàlla rek daf moo du daanu nag suñu borom moo du daanu mais bëri moom technique bu bëri Eumeu Sène da ko naan fédération yi fi jaar yëpp Eumeu Sène leen dàq bëri si à part mag ñi waaw parce que tar koo ci génération dama ne Eumeu Sène si dàq bëri Eumeu Sène ah yooyu xanaa gisoo Eumeu Sène ni mu ni mu xoolal ni mu bëre Gris Bordeaux gis nga ko ah. parce que damay waxtaan ak moom yenn saa yi ne ko Eumeu mu ñëw taxaw wax naa la combat moo Balla Gaye moom ñëw toog ba une heure du matin moo ko euh, Bombardier même chose damay wax mu wax ma wax mu wax ñu tafi benn terrain d'entente te du yàgg waaw waaw parce que dafa mën a bëre waaw amoon seen xëy na bi mu yokkoo poids tuuti sax la bërim de xaw a am kii mais Omar Sène boo ko fekkoon mbapat da kii du Omar seen kii du nit dafa mën a bëre zaal loolu tamit dafa mën a bëre booy Zallo. Zallo waa Zallo. Zallo dafa a bëre. waaw ah, dafa mën bëre. Ah, mhm. waaw ah, bëre. waaw. yaa ngi noonu Kayre même chose. waaw waaw ñooñu. ay bërëkkat lañu. waaw. Zal dafa Zal dafa dafa rampé baax na loolu leer na père léegi ñu ñëw si làmb euh, Boy Niang 2 ak Tapha Boy Niang 2 am na 15 combats yàlla dogal mu am 13 <laughs> victoire. ak ñaari defet si si victoire yi boo xoolee mu mu teglee Baye Mandione <coughs> guy gi euh, Garga Mbossé ak Sa Thiès muy ay ay xale yu ndaw ay ay moromam mu daan leen loolu mayoon ko tuuti mu mu mu dugg si VIP yi la dogal euh, examen contre Lac 2 demee ni ni ni mu demee ñu combat mag Balla Gaye 2 ñu doon ko coow jékki-jékki combat mag tafaati taxaw d'abord combat Boy Niang Balla Gaye lan moo ko téye taxaw père non suñu borom parce que nit boo namee dara te yàlla dogalu ko li yàlla dogal gis nañ ko mooy Boy tafaati moo ko dogal waaw mais nag ah, stratégie yi si biir làmb la moo ko làmba ànd ba nga xam ne Tapha Tine li nga wax léegi ne Boy Niang am na 15 combats am na deux défaites ñu ko sant suñu borom défaites yàlla na si yem yàlla mi moom ndam ñu ngi ñaan yàlla bu mbëru Pikine mbëru Pikine daanatu ci làmb waaw si barki yonent bi barki Abdou Khadir Jeylaani dafay am ay combats yu <laughs> yu ñor nag père xom Ama Baldé Modou Lô bi ni mu ñoree woon dafa mel ni noonu la Balla Gaye de ak booy Niang ñoree woon mel ni kon euh, kii kii di Gaston Mbengue def na si ay jéego am lu mu pour proposer woon d' accord leen mais dafa mel ni ñëwaat na sax après yu yokkaat 5 millions pour pour kiiwaat yooyu yàlla dogal. ñooñu bëgguma wax seen wax. waaw que boo bëggee boo nekkee promoteur. bëgg làmb bëgg a tëgg làmb ju Sénégal gépp d' ne combat bii la. Mm-hmm. ngeen toog seen salon. wala ngeen toog waxtaan am stratégie ku nekk ak sa xel ku nekk ak sa staff li Sénégal yi li Sénégal bëgg bëggoo ko yow nga bëgg leneen am na kon am na lu si nekk wala mbër mbër mi mbër mi xëy na lu foofu la bëgg parce que dama am dégg yenn saa yi supporter yenn supporter ñu ne Balla Gaye waragul bëre Boy Niang nangam sangam Balla Gaye bi muy bëre Gris Bordeaux bi mu bëreeg euh, Tyson Tyson bu ko neexoon bañ parce que Eumeu Sène daal na ko te Tyson moo nekkoon tête de film yaa ngi may dégg bu baax ah Yékini bi muy bëreeg moom chose bu ko neexoon Yékini du bëreeg moom làmb dabante la te yoon li li ma wax wërsëgu booy ñaa man mi papaam xaw ma lu ko yàlla bind si moom wërsëgu booy ñaa du man mi bàyyi munu ma ko jël keneen munu koo jël ku dul suñu borom parce que suñu borom bala moo bind doomu aadama wërsëg la jëkk bind kon booy ñaa kenn munu koo xaj wërsëgam gis nga fi mu a jaar ci làmb daf jaar suñu borom bind na ko ba noppi gëm-gëm boobu nag laa am te àdduna ku tëdd xam sa bopp di xam ndax yow yàlla yaa yàlla gëm nga yàlla wala gëmoo yàlla jarul coow lu bari jarul wane ko daan naa ko dégg Cheikh Tidiane si di ko wax almaxtum yoru kurus di faj di kacc kacc te boo bu ñu la gisee fajal si kër soxna eh, si jigéen kër ji néegu jigéen nga yeewoo taxul ñuy wax gëm-gëm gëm-gëm sa diggante ak sa borom la yow yàlla xam na yow xam nga li ma jox moom bo yàlla bu moom mi ma jox Boy Niang mën na ko sàmmal boppam mais man mënu maa sàmm sama bopp bay sàmm Boy Niang nga sama doom yi jox ma leen mënu ma leen sàmm xaw ma lu ma leen yàlla joxe yàlla mi mën a sàmm moo ko mën sàmmal boppam moom moom moom mi ko jox moom mi ma ko jox moo ko mën a sàmmal boppam te incha allah si kattanam moom yàlla si barki yonent bi dina leen sàmmal boppam parce que li yàlla def kenn mënu koo dindi doomu aadama xaju fa fa yàlla di defare doomu aadama àggu fa ñaan lu nag am na euh, say ñaan waajur mooy première loolu mooy loolu mooy solution gis nga ñaan waajur moom lay mooy def directement si yàlla waaw daa ngi dégg bërki dem Cheikh Tidiane si nee na yàlla mën ko ñaan tey mu may la déwén ah waaye moom limu mu bind bu nekk kun mu nekk ñun nag foofu lañ teg suñu bopp staff booy ñaay yëpp dañoo waxaatlu suñu borom xam ne kii kat munoon na juddu indi benn tànk munoon na juddu du gis munoon na juddu du xam bëre magam ngi nii bëriwul te magama ko jëkk a juddu mais yàlla moom la def si moom bëre ah kon moom mi mu def si moom bëre yàlla moom mi ko def moom mun na ko sàmmal boppam te nag kenn du ko gis te indiscipliné bépp journaliste wala bépp nit doone booy ñaa dafa réew wala dafa indiscipliné wala moo xam la wax bu ñaaw parce que xamu ko booy ñaa bi mu xamee Sandaga comme Mamadou Assane ki nekk si Modou Lo ah, si laa ànd ak moom Sandaga maa ngi ménager mu ne fii fal na que xamul loolu li ma xamoon mooy jàngi dem entraînement may ma ko jot bu mu dexe ay Sandaga dem ay Colobane ak ay yooyu man mi baay dox naa lépp kon xam naa lépp li si nekk kon damay am man fu may téye sama doom samay doom mosu ñoo dem baal mosu ñoo dem choléra mosu dem non yàlla dogal na mosu ñoo tox mosu ñoo naan mosu ñoo def damaa jaar fu metti xam fi xam loolu ba noppi nag yàlla dimbali ma si kattanam moom defal ma defal ma defal ma li ma parce que nag pour sa doom àgg foofu tamit yàlla mooy dimbali moo lay dimbali du yow yaa koy sàkku yaa koy def parce que ku sañoon sa doom lay gën mais rek yàlla yàlla moo lay moo lay moo mooy lay defal li nga xam ne moo gën si yow waaw loolu rek dañ koy sant suñu borom waaw mooy comme li ma la wax rek si si bawol gi waaw loolu rek waaw bawol gi ñun ay bawol bawol lañu séeréer bawol bawol lañu. léegi père bu ñu ñëwee bu ñu jeexal ci combat Boy Niang 2 ak Tapha soo déggee ñu ne Boy Niang 2 mënul dara ci ci ci ci Tapha du ci doole du ci xeex du ci dara loolu boo déggee nit wax ko yow la la lay def. Tapha Tine la de mbër la de champion la de mën na xeex. am na doole eh. mën na bëri parce eh. que sax dàqul bëre booy ñaar mais rek ñun daal hmm. kii yor ndam li te hmm. koy joxe hmm. dañuy tàll suñu loxo may ñu ndam mais rek Tapha Tine duma bomb daan Bombardier daan Elton daan fi ay champion fii booy sëy ceeg ah man nga taxaw ne booy booy ñaa ko ëpp doole wala moo ko man déedéet waaw ku si nekk wala nga man a daan sa borom mais nag ñun ñi nga xam ne ay waajur la ñu ngi ñaan tàllal yàlla loxo si barke Abdou Khadir Jaylaani yàlla may ñu ndam si barke yont bi barke Makka barke Ibrahima barke Kaaba yàlla may ñu ndam du sed guy ñu indi ko fi Pikine feete ko yàlla mën na ko ñu ngi koy tàllal loxo parce que ñun ay jaam yu xeebu la ñu ñaan rek la ñu waaw di ñaan rek kilifa diine tamit ñu ñaan ñu si barke yonti barke Abdou Khadir Jeylaani yàlla may ñu ndam si lii ñu jëm muy ndam.